Yàlla rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ci nuyoo lislaam bi gën a tedd di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Moustapha moom Cheikh Mouhamadou Lamine nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu euh, sunu waajur di sunu sëriñ Cheikh Mouhamadou Lamine ko jàllale ci mboolem njaboot gépp rek di kilifa yu tedd yi fi teew yépp am nañu jotaay bi te waa kër gépp waa sëñ Moussa ñépp ànd ak ñoom jotaay cër boobu ci njiitul sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Mahmadan ñu leen di nuyu baax ñépp leen ziar di mbooleem ñi fi ci ànd ak yéen jotaay bii di waxtaane benn tomb boo xam ne bu ñu ko dee waxtaane ñu ngi waxtaane jëmmi boroom bërëb bii ndax ràññiku woon na ci jikko yu tedd yépp waaye jikko ji ñu tànn tey ji bëgg cee fàttalante moom mën nañoo xam ne moo gën a ràññiku ci ay jikkoom mooy woyof ak toroxlu bu ñu waxtaan ci tomb boobu rek mën nañu wax ne ci jëmmam la ñuy waxtaan ndax jëmmaloon na ko jëmmal yiin woo xam ne néewaa na ku ko ni jëmmale yàlla ko yàlla dolli leer dolli ko njëggal yërmande ak ci ngërëm dolli ko mboolem magam yu tedd yi ak njaboot Sëriñ Tuubaa yépp ak jullit yee yépp xam naa ngir bañ a guddal lool ñu wax ne waxtaan wi ci toroxlu ak woyof la jëm ci biir loolu dañ jëm a xam toroxlu ak woyof mooy lan ban wàcc san solo la am ak nan la dikkee ci alquran ak sunna wax ay xaajam ay xeetam wax aslëf ci ay misaal yu koy tegtale joxe it ay melokaan ay misaal ci ay jëmm yu toroxlu woon tañ mën ci ñoom tàmbalee ko ci ki gën a tàdd ci ñàlla bind sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ba yegsi ci borom pénc mi su ko defee nag tomb bu mujj bi nag njariñ yi nga xam ne moo nekk ci toroxlu toroxlu mooy nit ki wàcce boppam daraja ji ko yàlla jox mën a jëflanteeg yow mën a jot ci yow ba mën a jëflanteeg yow wax fit janaaxaka lil muminin am na wàcceel sa bopp ba mën a jaxasoog mbooloom jullit mépp kon wàcce sa bopp ba jaxasoog ñi la yàlla booleel ñu war a jariñu ci yow war a ànd ak yow nga wàcce sa bopp ba ñeme la jot ci yow mën a jaxasoo yow loolu lañ digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci aaya bi te loolu mooy toroxlu wax na ko feneen wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduuna wajhahu wa na nga muñ te itam bu leen ko xamul waxee ñoom waxee wu noona duñ toppante waaye dañuy wax rek waxi maslaa ji leen di génne ci ab jaamaarloo loolu lépp ay tëkkale toroxlu am na ci alxuraan wala tusaayir xaddaka linnaas wala tamshi fil ardi maraxan inna laaha laa yuhibbu kulla muxtaalin faxuur bul feneti di wëlbati sa kanam boo jàkkaarloog nit ñi mel ni yaa leen gën mbaa waroo wax ak ñoom bul dox ci kaw suuf it di puukarewu di wanewu di yëg wan di feeñal ab dayoo ndax yàlla bëggul kuy puukare bëggul kuy damu kon loolu lépp ay aaya la yuy wane eh, toroxlu ni mu amee solo ak ni ko yàlla bëggee di ŋàññi itam jikko ji nga xam ne moom la safaanool te moo di ak rëy boppam jàpp na moo féete kaw ñi muy jaxasool wala moo leen moo leen gën euh, bu dee ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi moom baat bi ñëw na ci lu baree bare baree bari bokk na ci fi wax ne awxa llaahu an tawaadau wala yabgi baadukum ala baad mu ne yàlla wax yu na ci moom yàlla wàcce na ci moom ay wax ko digal di wax ne nañu toroxlu na nit ñi toroxlu nañuy wàcce seen bopp yëg ne ñoom ñépp ñoo ci doon ay jaanu yàlla bu kenn damu ci kaw moroomam bu kenn bew ci kaw moroomam bokk na ci itam li mu wax ne ma naqasat sadaqatun min maal wa ma zaada allahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawaadaxa ahadun lillahi illa rafaahu llah nee na joxe azaka du wàññi alal jéggale du tax torox waaye day tax nit ki yàlla gën koo yëkkati gën koo teral waaye toroxlu itam wàcce sa bopp képp ku ko def ngir yàlla yàlla dana la dana la yëkkati euh, kon am na fu muy waxit euh, ci ay xadis kon yu bëree bari taalamu al ilma wa taalamu al ilmi sakinata wal waqaar wa tawaadau liman tataalamuna minhu sàkku xam-xam te sàkk te jéem a am jikko yi tax a am xam-xam mooy amuk dal akuk wegeel te ñi leen di xamal na ngeen toroxlu ci seen kanam kon ay xadis yu bari dikk na di soññee ci toroxlu di ko tagg di tagg ñi nga xam ne ñoo koy def toroxlu nag ay xeet la mën nañ ko def ñaari xaaj toroxlu gu baax bu ñu rafetlu di tagg boroom ak toroxlu goo xam ne moom euh, rafetlu weesu ko tey dañuy ŋaan yi ku koy def toroxlu gi nga xam ne moom lañu santaane te di ko rafetlu di ko taggee nit ñetti xeeti toroxlu la bu jëkk bi mooy toroxlu bu yàlla diglee nga toroxlu jëfe ndigal la nga xam ne ab jaam nga bu boroomam digal nga war a jëfe ndigal la ak toroxlu bu yàlla teree nga yëg ne ab jaam nga bu boromam tere dara da ko war a daal bàyyi kon toroxlu ci topp ndigal ak bàyyi tere ndax gàntu ndigal ak jëfe tere ci ak rëy la bokk ci ak rëy la bokk xam ngeen ne iblis laanahullah moom mi yàlla rëbbu dàq ko ci na la ko ko tegoon mooy dañ ko digal mu gàntu dañ ko digal mu sujjóotal aadama mu gàntu mu bañ féeteerlu lànk ndigal ñu ne ko lu tax defoo ko mu ne maa gën ki ñu may sujjóotloo maa ko gën kon ak rëy a tax mu gàntu ndigal kon toroxlu mi ngi tàmbalee ci nangoo jëfe ndigalul yàlla nangoo bàyyi ay tereem toog santaane bu ñu sartu toroxlu bi ci des mooy nit ki di toroxlu ci màggu yàlla nit ki di fàttaliku màggaayu sunu boroom li mu aajowoo lool ndimbalu sunu wax ne ci fànn ne di fàttali loolu fàttali boppam loolu dellu ci boroomam di tuub di jéggalu di am gàtt ci aw melokaanam euh, ci diggante mag boroomam loolu ak toroxlu la والعظمة الجارية sama malaan sama malaan la sama berax laay sama malaan la sama làmbaay Euh, màggaay sama teexlaay maanaam ñaari melo yi moo ko jagoo ak rëy ak ak màgg ñaari képp koom xëccoo nga man benn ci ñaar yooyu ma sànni ko sawar nit ki yëg mag yàlla rëyaayam moom luy toroxlu ragal di am gàttal ci yàlla loolu ak toox la boo xam ne bu ñu sant la kon ñaari toox yépp ñu jëm ci ñu ni nag ci diggante jaam bi ak boroomam ndax toroxlu it ci yàlla la la yàlla moo ca ci gën a ma tey toroxlu mooy yàlla mi nga xam ne moom mooy ci tedd mooy ci màgg mooy ci kawe xam ne ku tedd moo la teral ku màgg it moo la màggal ku kawe moo la yëkkati kon toroxlu yàlla moo jiitu ci toroxlu ci toppaat ci ñetteel bi ci ñu sant mooy toroxlu doomu aadama yi maanaam wàccee sa bopp ba mën a jaxasoo doomu aadama yi te doo leen xeeb doo leen ëppale sa bopp te loolu nga di ko def ci anam koo xam ne ak manque di ca am te yàlla rek di loolu mooy toroxlu yi nga xam ne moom la ñu muy sant toroxlu yi nga xam ne nag dañ koy ŋàññi mooy nit ku toroxal boppam bàyyi bàyyi ko topp bakkanam topp bakkanam topp bànneexam topp seytaane ba mujj nekk ko torox koo xam ne dafa mel ni ku fàtte teraanga ji ko boroomam defal ak doon gi ma doon doon jaamub yàlla war a not bakkanam war koo féete kaw war koo jaarale ci ndigali yàlla yi Euh, kon koo xam ne daal ab bak kanam da ko ngalaab war ko di ko dañal ak toroxlul boroom alal mbaa boroom daraja yoo xam ne darajaam daraja yi ju lislaam day àdduna rekk la nga toroxlul ko ngir bëgg ci alalam mbaa bëggal bëgg mu baaxe la ci dara jaam toroxlu nitu àdduna ak borom alal loolu toroxlu la guñu ŋàññ moo tax sëriñ bu mag bi di wax ne tawaadoon ilal ganiyi saalihi yuzhibu sul say diini kulli saalihi toroxlu ci kenam borom alal joo xam ne nit ku baax la loolu bu ko nit defee ñàkk na ñaari ceer yi diineem deux ceer yi diineem bu defoon diinam ñetti xaaj ñaari xaaja moom ñàkk na ko bu toroxlool lool boroom alal joo xam nit ku baax la mu def ko ngir bëgg ci alalam ama tawaadon li zalimin fala yubqi min ad diini layaadan fanqila mu ne nag bu fekkee ne nit ki ngay toroxlul moom ngir bëggal ko alal bëggeel ko ci alalam kooku moom du nit ku baax du nit ku jub nee kooka moom ku ko def dara ci deseetul dara ci diinam diinam jëpp ñàkk na ko kon loolu mooy torox gi nga xam ne moom la ñu moom lañ ŋàññi toroxlu nag am na ay anam am na ay jëf ak i melokaan yu koy màndargaal yoo xam bu ko nit dee defe ñu mën koo jàppee ku toroxlu bokk na ca di war maal say kilit ëpp la daraja yàlla jiital ko ci sa kanam nga nangu loola jox ko cër ba mu am ci yow ngir jëmmi yàlla loolu bokk na ci ak toroxlu bokk na ci toroxlu nangoo toog ak nit ñi nga xam ne ñu ñàkk lañ di waxtaan ak ñoom mel ni kenn ci ñoom doo xàmmee sa bopp ak ñoom bokk na ci toroxlu nangoo bokk ak way ñàkk yi di lekk wala nit ñi nga xam ne daal mel na ne duñ say nawle nga mën a bokk ak ñoom ci lenn ndab jëfandiku di lekk loolu bokk na ci ak bokk na ci toroxlu nangu dëgg xam saa yoo waxee nit mu wax la dëgg nga nangu ko doonte ki ki la wax dëgg gin gone la gone la bu ndaw waaye lim la wax dëgg la boo toroxloo da bokk ci torox nga nangu waxam joojee ki ko wax sax ku réer la amul xam waaye li wax moom dëgg la yow nga doon boroom xam-xam baa ngay bokk na ci ak euh, toroxlu bokk na ci toroxlu itam booy wax nga bañ a yëkkati sa kàddu bañ koo diisal bañ a mel ni ñi ngay waxal ah, ñoom ñëpp yaa leen fare ko wala yaa leen génn kon di suufeel sa kàddu ci boo dee wax loolu tam bokk na ci toroxlu ah, ah, kuy yëkkati kàddoom ndax nee na kàddu bu xumb bu tar bu niroog kàddu mbaam kon loolu wàcc sa kàddu gi ci benn loolu bokk na ci ak torox bokk na ci torox itam boo fekk ci aajowoo ko ku ni mag mu ñëw doole wala ku am laago ah, nga jàppale ko ba mu faj aajoom loolu itam bokk na ci ak toroxlu Euh, bokk na ci toroxlu itam nga bañ a wane lenn loo xam ne yàlla defal na la ko loo xam ne yaa ko sute nit ñi nga xam doo gis benn ngëneel bu ne ci yow walla wenn melow wu kawe woo xam ne war nga mën a gis ne yaa ko gën a nit ñi nga bañ di ko gis te ku la ko bëgg a wan nga jëlale ko bokk na ci torox itam koo gis rek nga jàpp ne moo la am na lu mu la gënee boo jàpp am na lu mu la gënee jàpp ne yow daal yaa yées wa annahum afsaxu fisaas kullihim wa annahum lam yalbisu loolu itam bokk na ci ak euh, ak ak ak toroxlu kon yëpp ay misaal la yoo xam ne day wane ak te bokk ni toroxal itam bañ a fonk sol ay yére yu rëy bañ a bañ a bañ a rëy ak bañ a rëy rëylu ci am col bokk na ci ak toroxlu dikk ni ci xadis yonent bi sol alayhi wasallam mu wax ne képp koo xam ne am na xeeti yére yu foor yoo mën a am nga bañ koo wut ngir toroxlu bu yomal xiyaamee ba ñëpp teew suñu borom dana la woo ba ñépp ba nga jóg ñépp di la séen mu wan la ci koddaay yi ngëm yàlla yi ne la tànn ci bu la soob nga tànn ko ñu jox la ko loolu it bokk na ci e, e, kon bañ a fonk bañ a rëy bañ a fonk am col ak kii bokk na ci xeeti toroxlu bu ko defee nag bu ñu ñëwee ci misaal ay misaal ci ay jëmm yu toroxlu ñu ngi koy tàmbalee ci ku tedd ki ki nga xam moo gën ci ñi yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam te yàlla tagg ko ci jikko ju rafet ku toroxlu la woon ku wàcce boppam la woon sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laaj nañ ko ne ko nan la yonent bi sallallahu alayhi meloon ci biir këram mu ne moo daa liggéeyal waa kër gi lépp lu yittee waa kër gi moo ci daa taxaw waaw lépp lu ku dëkk ci kër gi lépp lu si yitte rek mooy taxaw ca yitte joojee defal la ko maanaam mel ni mooy sul waa kër gi bu julli jotee mu dem julli ji neen loolu la fi nekkee woon daana ñaw ay mbubbam mbubam daana xotti ko defi sagar mu di ko ñawaat di ko sol dàllam daana dagg muyul ay waro di ko ca def di ko sol daana tëdd ci lal bu wow muy marqué ci aw yaramam bu génnee marqué euh, ki euh, euh, jeexit ya di feeñ ci jëmmam Seydina Usmaan bin Affaan radiyallaahu anhu nee na ànd na yonent bi sallallaahu ci tukki ànd ak moom ci lu dul tukki waaye daf daan seeti ñi wopp di dem ca armeel di gunge ñi faatu di ànd ak ñun di xare ku bari lu mu daan tudd yàlla la ku néew waxi mbërant la ku yàggu julli la xam naa julli naafi la guddi ku daa gàttal ab xutbaam la daawul jomba ànd ak

ko ñëw am na nit ko ne jàpp dara di ak màggaay dafa tax waa day lox day lox ko wax naka defal ndaw liggéey na ko lii la bokkoo daana rek daa daa loolu bokkoon na ci ak ak ak ak toroxlo Abu Ubayda ñu dem yoon yi ñu fekk ndox mu baree baree bari mu taa am xuus ay botam takk ko ci baatam wàcc gileem gi mu waroon di ko mat puus puus daal di puus ci biir ndox mi ba jàll Seydina Abu Ubayda ne ko lii de neexuma li nga def nii ma ndax bu ma sañoon jàmbur yi nga xam ne ñoom lañu jëm te duñuy julli ah, du la yem wax ji mel noonu mu ne ko yow de kàddu gi nga yëkkati bu ko keneen yëkkati woon ku dul yow mii danaa la def loo xam ne euh, ñëpp danañ ci waaru ba kenn dootu waxati lu mel noonu daal xanaa xamoo ne ñun ñoo gënoon torox ci nit ñi yàlla teral ñu bu bëggaatee nag teraanga yàlla te jaaruñ ko ci toroxlu ci ci ca la te defuñu nañu yàlla terale la tax yàlla tey bu ñu ko deful di ko sàkku teraanga ci leneen mais su boobaa yàlla def ni toroxal kon loolu bokkoon na ci toroxlu Seydina Omar bu dee ci ñëw ginnaaw bi am na ku ñëw Seydina Uways alxarani fekkewul gisul yonent bi salas bi ci zahir waaye fekke na jamonoy Seydina Omar yonent bi dañ leen woo daf leen waxoon ne am na ku ñuy wax Uways Uways ibnu wax ci moom ay tegtal ne yaman la nekk wax si naa woon ne ko su yàlla dogalee nga gis ko na nga fexe mu ñaanal la soo ko mënee ndax moom lu mu dogu yàlla fekk ko de Seydina Omar daan def saa yu mbooloo jógee yaman ñëw rek mu laajte ne ndax ku ñu wax Uways ñu ci seen biir ñu ne ko déedéet ba am bis mbooloo ñëw moo xam ne Uways man ci seen biir ñu mu laajte mu ne axa kay mu ne ko yow ay mu ne ko waaw Uways ibn Amir mu ne ko waaw mu ne ko yaa ngi bokk ci Muraad la mu ne ko waaw mu ne ko yaa bokk ci xaran mooy ak diiram mu ne ko waaw mu ne ko da ngaa mas a siti yàlla saafara la sa yaram yépp wéraat delloon mel na meloon ba des benn tërgën buy tolloo kub dërëm mu ne ko waaw mu ne ko am nga waajur wu jigéen waxam mi ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko dama déggoon yonent bi sallallahu alayhi ne am na ku ñuy wax Uways ibn Amir bokk ci muraad bokk ci karan mas naa siti ba yaram lépp daj yàlla saafara ko ba mu des tërgën buy tolloo kub dërëm am na waajur wu jigéen woo xam ne ponk na ko lool teral na ko ba baax na ci moom lool waaye kookee lum lu mu dogu soo ko gisee daal di ko ñaanal ma ñaanal ma yàlla jéggal ma Sidna Oys dal di koy ñaanal euh, loolu danga ci ciy gisee toroxlu Sidna Omar moom jamono yooyu moom mooy xalifa bi gan ñëw goo xam ne kenn xamu ko euh, ci ñim àndal ak ñim fekk si mu wax ay qualitéem ba noppi taal ko loo xam ne ko ñaanal ma ba ko ñaanale ba noppi ne ko foo jëm mu ne ko Kuufa laa jëm mu ne ko teemalaa bindal bataaxel boole laa gouverneur ba fa nekk ndax mu jox la sa wàccuwaay mu ne ko bàyyi ma rek ma raaxaloo ci biir nit ñi doon kenn ci nit ñi kenn bañ maa xam loolu moo ma gënal akoonu fi xabra innaasi ahabu ya mu daal di ànd ak waa Koofa dem Koofa ba ci déwén sa am mbooloo mu jóge Koofa ñëwaat ak si Màkka gis Seydina Omar mu laaj la ne ana ooy sum na amir ka ko waxoon am ku ko tontu ne ko ma nga fa de waaye ma nga dëkk ci néeg bu ràpp ku ñàkki bagaas la amul dara mu daal koy nettali xadis bi yonent bi sallallahu wax ci moom kooka daal dellu ca Uways daal ko ne ñaanal ma Uways na ko yow mii yaa ma war a ñaanal ndax yaa jóge ci barab yu sell ya mu ne ko ñaanal ma rek mu ne ko yow mii yaa ma war a ñaanal ndax yaa jóge ca barab yu sell ya mu daal koy nettali xadis bi yoon bi Seydina Omar wax Seydina Aws daal di koy ñaanal ba xabaar ba siiwee nit ñi xam ko mu daal di teg njëm ne mes kenn gisatu ko gis nga ki am kooku daraja ji mu am ci sunu boroom ak ni mu bëgg a wàccee boppam ba kenn du ko xam bu ñëwee ci histoire bu gën a jege sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu daana toog ci suuf toogee ni kuy joofeerlu day toog ci suuf buy waxtaan di maasale suuf si di rëdd ak a tomb daana tàngal ataay ci loxoom di ko jox kenn nit wala mu tàngal kafe ci loxoom di ko jox kenn nit daana dukkat ay bagage di ko toxale ci barab di ko jëmale ci barab daana togg togg toggal na boppam ab laax jox ko jëmm joo xam ne daa am lum namoon ci moom kon daana liggéeyal boppam mbooloo mi toog muy muy muy muy liggéey moom ci boppam di tàngal ataay moom ci boppam nga xam ne mooy raxas di teg ca taal ba di teggi di xelli ku nekk mooy papkaas bi dem ba ca yow mu jox la te du nangu kenn ku laal dara ci li muy def loolu misaal la ci ak toroxloom radiyallahu taala anhu bu ñëwee ci borom béréb bii moom képp ku ko xam xam nga ci moom ak toroxlu jëmm la joo xam ne dafa wàcce woon boppam maaseek doomaadama aadama yépp ña suufee daraja daa toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di kaf ak ñoom di tooñante ak ñoom di woo ay nit téléphone ay nit simple mu leen di woo téléphone ñu koy woo téléphone muy wuyu euh, di képp koo xam ne kilifaam la mu di la liggéeyal ñépp xam yëg nañu ne dégg nañu ne sëriñ Cheikh Mamadou Fadel mas ko booleeg sëriñ Saalihu mu nekk ab chauffeur am diirub jamono ba sëriñ Saalihu yawil ko boppam ni mu daan taxawoo Cheikh Abdou Khadr ci ajuma ju jot di ko gunge di ko encadré di ko ŋàbbal xutba bi di ko tegal ci kaw diirub li sëriñ Abdou Khadr nekk xalifa loolu ñëpp teg nañ ci seen bët ba ni mu àndeek moom ni ko sëriñ Blaat booleeg moom mu ànd ak moom euh, gunge ko Màkka aar ko taxaw ko ba mu joxe ay faratam yooyu yëpp ay misaal la ci ak woyofam ak toroxloom jëpp yitte joo xam ne mas na koo yëg doomu aadama yittewoo ko bala am jàmm yitte jooje daa faju ak doomu aadama ku mën a doon ak wàccuwaay bu mu mën a am kon jëmmagoog joo xam ne buñ dee waxtaane woyof baa ñuy waxtaane ak toroxlu moom doy na ci misaal toroxlu nag ngir bañ a guddal nekk na lu jikko ju am solo lool ci ab société amal njariñ lool it ki koy def ndax toroxlu day waral nit ñi bëggante ñëpp woyofe kenn ku nekk da ngay bëgg sa moom ndax nit ko woyof ñëpp a koy bëgg ñépp a koy euh, yàkkawliku kon day tax nit ñi bëggante day tax nit ñi yëg ne ñëpp ñoom ñëpp ay bokk lañ day tax nit ñi yëg ne ñoom ñëpp a yam day taxit jëflante bi yomb ci diggante nit ñi day tax kiñaanante jeex soxorante jeex puukarante jeex waneb dayo jeex ñëpp euh, joxante loxo euh, maase Euh, di kaf di jàmm am sutura am loolu toroxlu da koy def ci ab société waaye toroxlu nag jëmm ji koy def day nekk koo xam ñépp a koy bëgg ñépp a koy safoo ñépp koy faale ki ko defi faw yëkk yàlla yëkkati ko ba mu tiim ay nawleem jàpp naa ne kilifa gi ñu doon tudd léegi muy borom béréb bi fa mu yàggoon cig woyof akuk toroxlu yéesul fenn waaye nag yàlla yëkkati na ko yëkkati koo xam ne it yéesul fenn ndax ñu dem ba ñu ne yoway Sëriñ Tubaa ci kaw suuf ñi Sëriñ Tubaa ñi yaakaar Sëriñ Tubaa ñépp yaa leen yilif yaa leen féete kaw ngay joxe ndigal loolu ak yëkkati euh, féetiwu ko kaw mu nekk ki njëkk a wuutu sëriñ bu mag bi ci ci ci ay sëtam loolu teraanga ju réy la dara ju kawe la yoo xam ne kon suñu borom li yonent bi sallallahu alayhi sa waxoon ne maato tawaadaa ahadun lillahi illa rafaahu llah kenn du toroxlu ngir yàlla lu dul bu yàlla da ko yëkkati kon loolee euh, feeñ na bu baax a baax euh, ci moom kon toroxlu day tax yàlla yëkkati la day tax yàlla yëkkati Euh, nit ki toroxlu it euh, ku ko def day yombal day tax suñ boroom tàbbal ko aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tuubaa liman tawaadaa li ahlil faqri wal maskanati wa ahabba waaw waaw texe ñel na képp koo xam ne yaa ngi wàcce sa bopp ngir yàlla di ànd ak ñi nga xam ñu ñàkk lañ di ñi nga xam ne ñu suufee ay daraja waaye Tuubaa ñel na képp koo xam ne dangay dimbale ñi am ittee te di toog ak boroom xam-xam yi ak boroom xel yu rafet yi Seydina Isa ibnu Maryam nee na Tuubaa lil mutawaadiina innahum ahlul manaabiri yowma alqiyaama tuuba lil muslihina bayna annaas innahum yarisuuna al firdaws mu ne ñiy texe mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy toroxlu fii ci àdduna bu ëllëgee yàlla dina defal ay tribune yu kawe ñu teg leen ñépp di leen seen nañ doon wàccee seen bopp ci àdduna yàlla yëkkatee leen noonu seen daraja ba ñépp di leen euh, seen mu ne ñiy defar diggante nit ñi xajam di jubóo di ko ñooy dem firdaws toroxlu day tax yàlla bëgg la day tax kii toroxlu yàlla daf koy bëgg alquran mi ngi wax ne yaa ayuha alladina amanu man yartadi minkum an diinihi fa sawfa yaati llahu bi qawmin yuhibuhum wa yuhibuunahu azillatin ala almuminin aizatin ala alkafirin ba aaya ba jeex waaw mu ne ñi nga xam ne dañuy képp koo xam ne bàyyi na diineem génn ci lislaam yàlla dana indi ñeneen ñoo xam ne ñoom dañuy bëgg yàlla yàlla bëgg leen ñooñee boole na ca ñi nga xam dañuy toroxlu dañuy toroxlu seen bokki jullit euh, waaye dañuy jàggit ak rëy rëylu ci kaw yéefar yi kon toroxlu day tax am mbëggeelu euh, sunu boroom te mbëggeelu suñu borom ku yàlla bëgg day wax Seydina Jibril ne ko yéeneel ci asamaan wax ne diw yàlla bëgg na ko bu ko defee bu ko yéenee yàlla day daal def mbëggeelam ci xol yi ñëpp ñëpp su ko defee ñëpp dañ koy daal di bëgg kon ku toroxlu yàlla daf koy bëgg su ko defee bindeef yépp it dañ koy bëgg euh, kon defe naa ku yàlla bëgg nit ñëpp bëgg la ñëpp yàkkawli ko la nga ràññi ko lool yàlla yëkkati sa daraja loolu doy na ak ah, teraanga doy na ak màgg te loolu mi ngi ci toroxlu kon ngir bañ a guddal jataay bi ñu tënk fii waxtaan wi di wax ne daal wàcce sa bopp toroxlu ngir jëmm yàlla jikko ju kawe la yoo xam ne eh, ñi yàlla tànn te jigit baaxe leen leen ñoom la jox te borom béréb bi ku ci ràññiku la woon kon ñun ñëpp nañ góorgóorluwaat bàyyiwaat xel melokaan woowu euh, muy toroxlu ak wàcce sa bopp ak bañ a gis sa daraja ak bañ a yëkkatiku euh, xam ne rek kenn nga ci sa biir bokk kenn nga it sa biir nawle euh, ngay jaxasoo nit ñi nit nit rek loolu ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax te xam ne loolu mooy indi jàmm moo indi bëggante moo indi nawlonte moo yombal ab jëflante ci sunu biir ñu ngi tënk fii kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum mbokk yi ñoom leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bi nga xam ne ci lañu nekk. di sunu borom subhanahu wa mu boole ko ci jataay yi ëpp solo ci sunu dund jataay yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala ci la yonent bi sallallahu alayhi waxoon mu boole ko ci muy jataay yi nga xam ne yàlla daf cay far ay bakkaar di cay yëkkati ay daraja yàlla ñu ko xam naa ne daanaka commentaire yi jëru ko jëru ko woon day tolloog rek keppaar gi ñu nekk ndigal lañ fi wéyee moo waral ba lu ñu fi digal ñu defe ko waaye waxtaan wi mat na mat goo xam ne rafet na rafet goo xam ne jël woon di teg dara sëriñ Afe li mu waxtaane di tomb bu am solo di tomb bu nurul lu yomb waaye lu jafe mu daaneele lekkoo boroom ëtt bii di sëriñ Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne jëmmi tomb bi la woon bu doon dox nga xam ne kum doon ci ñun rek mën naa wax luy màndargaal ne sëriñ Alxaaji Baara tomb bii moom dafa nekkoon ci moom muy wàcce boppam sëriñ Afa indi na ci yu bari ca kum doon ci ñun li ma ko waxee rek bu ñu la joxoon mën nga cee indi yeneen ak yeneen ci màndargaal ne moom foofu la nekkoon des na ci indi yenn yu néew bokk na ca yooya moom am nay jamono ñu bari dañ koo xamoon barab bu ñuy wax Sonatel ba ñenn ñi sax daana wax ne dafay xëy lan moo ko fa daan yóbbu li ko fa daan yóbbu de mooy jaaxle ak ay nit ñoo xam ne am nañu lu ñuy sàkku ca mu jafe ci ñoom ndax booba ngir nga abonné téléphone fix boo defee demande ngir nga jot sa téléphone sa kër ñu indil la daawul yomb mu nekkoon kilifa goo xam ne daawul tëju saa boo àggee ca woyofam nga fekk ko ci ëttam ba ca saa boo àggee it mu dalal la ca woyofam nga déglu la nga wax sa soxla mu gëm ne it soxla soosu daa war a faju ca moom da ko war a faj moo waral mu daan dagale ay dossiers yu bari document yu bari abonnement yu bari xëy dem Sonatel ngir topp tool ñooña seen abonnement yi ngir jot moo xam mu xam la ak mu ñàkk la xam nga xam ne dangay ñëw rek wax sa jaaxle jël say kayit jox ko mu daal di jàpp ne moom ci boppamkat moo war a faj soxla si soxla si mbokkum jullitam mii loolu demoon na ba mujj jege gi tax ba saa bu ñëwee am barab boo xam ne dafa féete woon ngir loolu du woon soxlay boppam du woon ay yittey boppam waaye yittey nit ñi la woon ca woyof nga moo war a it mu accessible ba nga xam ne ku agsi fekk ko fa mën a jot ci moom loolu màndarga la ci mooy kon woyof gi moo taxoon mu amaloon njariñ taalibe yi lool a cheikh abdul fatah mi nga xam ne mooy sama sëriñ ibnu cheikh abdul fadil hafidahullah nee na sëriñ falilu daan wax ne yéen sëriñ si lu ngeen di jariñ seeni taalibe bay boo mu nekk fii ci àdduna sëriñ buy jariñub taalibeem na ko amal njariñ fii ci àdduna ndax yomal xiyaam moom sëriñ tubaa képp lañ fa yaakaar sëriñ fal loolu daan wax moo war loon alxaaji baara moom kon bokkoon na ci ak dundam màndargaal loolu ci woyofam bokkoon na ci daan màndargaal ak woyofam mooy boo ma saan dem ci barab bi mu dëkk boo ma saan dem ci barab bi mu dëkk xam ne ku woyofal boppam a ngi nii lal ba daf ci daan jël ay téere ba mu fees dell toogu ya noonu ak ay bagage nga fekk ko mu wéeru ci ab fauteuil toog ci fu doye di ci yow nga xam ne booy xool da nga naan foofa yow si jëmmi bopp maanaam dëgg-dëgg xemmee moo fa toog fa moom mu doon ki mu doon ak wàccuwaay bi mu doon doon Serigne Falilu doon Serigne Touba di toog foofa yëmu ca waaye léeg-léeg sax mu fanaan fa maanaam léeg-léeg noonu mu wéeroo ci barab boobu ci barab bu suufee boobu ci yow ci say gët noonu lay far fanaan fa kon la muy màndargaal mooy bariwaa na ku daan riir ñëw jàpp ne boo ñëwee ci ay barab yu yéeme nga koy fekk ci melokaan yu yéeme boo ñëwee fekk ko ca suufeem googa ak mokkam googa ak doye dalam àdduna googa loolu ñëpp xam nañ ko ci xam nañ ne bi muy doog a nekk xalifa sëriñ Touba radiyallahu anhu ca melokaan yooyu nekk ci barab bi dëkkuwaayam yépp dal nañuy tabax benn néeg ci ginnaaw boo xam ne néeg bu gaaw lañ ko def ngir ne woon saa boo xamee ne kilifa yi ñëw na président ñëw na wala kilifa yenn yi ñëw mu dalal leen fa néeg booba ku ne xam na ne bi mu amee juróom-ñetti fan rek daanaka mel na ne néeg yi ci des daanaka mel na ne néeg yi ci des ngir lan mooy dundin yu mu doon dund maanaam dara soppiku dara soppiwul loolu màndarga la bokk na ci li sëñ Afane wax léegi mooy nangoo déglu sëriñ Alxaaji Baara ak oyof gi moo waraloon ñëpp mën a ñemee wax ak moom ñëpp ñemee wax ak moom boo ñëwee ubbiku ga bu dee koo xam ne xam na ne kat yaa ngi yaa ngi liifantu ci làmmiñu arab dalay dalal won la safoo gi muy safoo li nga nekk dalay lay làkkantoog yow arab bu dee koo xam ne ku dégg tubaab la mu daal di làkkantoog yow tubaab pour wan ñemeel la boppam ubbil la boppam saa boo nekkee koo xam ne sax xëy na miinoo ko tax nga xool ko xawoo ubbeeku moom moo lay wan ne la man kat fii laa nekk sëriñ Cheikh xaw Balla sëriñ Fallou nee na ànd nag nit kooka ñëw ci alxaaji baara xaw bëgg a wax soxlaam xaw a xaw a daal xam naa xaw a tëy tëy gi tax alxaaji baara ne ko xoola maa ngi lay xamal ne ginaar gu bootul booful maa ko gën lewet waxal sa soxla ginaar gu bootul booful màgg na leen li may jeexale ci màndargam of gi sëriñ Habibu Mbàkke sëriñ Faliilu moom ko nett nee na dagg ak alxaaji baara aj màkk goo xam ne metti woon na lool nee na sànni jamra ga jafe lool nee na alxaaji baara daf maa tungóom daf maa yanu tungóom ma jël xeeri jox ma ba ma sànni sama jamra yépp mu doog ma wàcc mu doog ma wàcc loolu màndargam of mënu ko weesu dégg naa ci làmmiñam mu ne aji naa ñeen fukki yoon ak lu topp waaye mboolem bare bi aj yi fa ma ci gën a neex mooy muna ak arafa loolu am na lu muy tegtale ndax muna ak arafa mooy barab yi gën a metti ci aj am na ñoo xam ne buñ jaaree ci aj duuduñ fa dellu ngir ngir ngir conditions yi muna ak arafa moom mu ne la ma gën a neex ci aj màkka mooy muna ak arafa ndax boo fa àggee da nga xam ne nit nga noonu la ko xewoon kon kooku foofu la nekkoon ci ak woyof yàlla ñu ko yàlla fayal sëriñ Afee waxtaan wi am na solo lool bu ñu bëgg ñoo guddal Eh, dafa tolloog rek ni ñu ko waxee woon sànq ci tàmbali bi ay taal ab taalibe lañ boo xam ne fii ndigal lañ fiy déglu bu ñu joxee ndigal sëñ ñoo def lu may jëfe ko waaye waxtaan yi matoon loolu rafet na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jataay yi nag jataay sant yàlla la ndax gaa yu baax yi la salafa saale jataay yi fàttaliku gaa yu baax yi baax yi nga xam ne def nañ fi lu rëy amal fi lu rëy. jar fi ñu bari jàngal fi ñu bari amal fi njariñ ñu baree baree bari amal njariñ ñu bari ci wet yépp nag mat bi yéen wa maanaam yéen kon jataay la yoo xam ne jataay diine la jataay yi xam-xam la jataay yu sàkku barke la yàlla na nga xam ne itam mooy Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa Alaaji Baara tànn Sëriñ Abdul Baax tudd ko bis bi xamoon naa si diggante bu baax a baax a baax ay xar la ñoom ñu wér yaakaar yaakaar naa ne ki mu ko tuddee maguma ko lu bari ndax mag kon loolu yéen la joo xam ne ji suñ ko defee tey Sëriñ Abdul Baax dina ci bég lool te aw ma sikk sàkk ci ne Serigne Baaxe su bëggee ma Massamba sikk te bëggum Serigne Massamba mooy bëggum Serigne Touba loolu kenn na tamit am na ko wax bi diggante ak sëriñ tuubaa kenn mënu ko natt ndax dégg naa ñu ne Serigne Touba da ko woo moo ñu bari ay bokkam ne kenn ku ne na nga wax li nga bëgg ma defal ko ba yegg see Serigne Massamba daf ko ne man ne Mbàkke mel ne yow laa bëgg man de mbakki mel na yow laa bëgg moo ko ma sàmba mel na man de faat na waaye danaa la may su ma tegg sam tànk ndax moo ko defal lépp mooy magam di mbaayam di sëriñam ñooñu nag nga xam ne ñooñu ñoom lañ fàttaliku tey di sëriñ ma sàmb sëriñ dul baax alaaji baara ba ci sëriñ Fallu Mbàkke ku leen fàttaliku tey fàttaliku gaa yi nga xam ne yàlla wax na ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaaha fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantasir wa maa baddaluu tabdiilaa ñooñ ñooñ ñi nga xam ne li ñu war def lépp def nañ ko te mos ñoo soppiku mos ñoo sens def lépp ci àdduna def nañ ko ba mat sëkk àdduna li ci ëpp solo li ci ëpp solo defe naa ne mooy jëriñ doomu aadama te yaakaar naa ne bu ñu seetee feeñul baax ñi mu jëriñ ci adduna alaaji baar ñi mu jëriñ ci adduna yaakaar na koo seet ci bokk yi de xam naa ñu néew a ci ñu néew ci des xam naa nag maa ci ëppale moom ak ndox la waaye noonu busoo bi moom ñu ñëpp war a taxaw ci alaaji baara lu mu xewale ñëpp ñëw lu mu woote ñëpp jàpp ndax fii la taxaw wax ci rajo bi ne yéenay première am na ñu neexul nag waaye moom moom la fas ci xolam moom la gëm moom la bëgg yéenay première kon nooy première am na am na yoo xam ne laaj ma sax sax laaj baax wax man ko dama laaj ak baaxama ak ko setam ak ko bëggam lu baax ak bëgg sëñ Fallu nag lool ba ba jéggi dayoo kon ñooñu seen ngëm ak seenu dëgër ak seenu njàmbaar ak seenu baax kenn mënu koo bind ci këyit kenn mënu ko wax ci mbooloo ba ba mu daj li des rek mooy jàngal seeni jikko ba jéey mel na ñoom ndax ñoom ñooñu de kenn ku ne am nga benn jikko boo xam ne bii mën naa bu ñu parce que àjjana sëriñ bu baax mu de tamit yaakaar ne moo gën a ñëpp laaj baar bu dee woyof képp moo gën a def ñëpp am na ko wax fii boo diggee boo déggee français wala nga dégg arabe wala nga dégg anglais mu bëgg laa cox ngir bëgg waxtaan ak yow ngir bëgg royo seen baax na moom tabe gi xam naa ci bu wér a wér maag bi yëpp rawatina sëñ Bousso mee toog maag moom xam nañ tabe moo tax yaakaar naa ne bu ñu nekkoon ba sàq sax suñu wooyee ne nu kaay leen wuyu ci yëfi seen Abdul Baaxe day ñokket ñëw ànd ak ñeem yéen ba mu egg ñu delluwaat ñu lay gor ndax lu ne defal na ko te noonu mu ko defal noonu ko defal na ko defal la ñu baree baree bare bëri ndax xam naa ñu bari ñoo xam ne ñoo fa daa daje teraanga ñooy defal leen ko ñooñu it ñu ngi ñu ko bëri ndax ñu ngi koy ñaanal ñu ngi ñëw ci mbokk yi ñu ngi jaxasoo ay doomam kon yàlla na ko sa borom yàggal te yàlla defal leen li bëgg yéene gi seen du baax amoon ñu yeggale ko nañ ko bëggee te dara ni leen ko ndax ñoom day boo seetloo alaaj baar li mu am ci xilaafa gi ba mu njëkkee toog dane daa daa def mel ni madinatul munawwara daa def tuubaa ba mel ni madinatul munawwara ku ne xam na ne gis na tuubaa émence bi ma yor fi mu ne ci xar kanamu tuubaa alaaj baar jëf na ci lu baree baree baree bare yaakaar ne bu toogal lu mat ñaar fukki at wala fukki at ak nangam kon Touba dana yéeme ndax yéeneem ak baaxam ak bëggam bëggam bëggam sëñ Touba sëñ Fallu la bëggoon lool te bëgg sëñ Fallu mooy bëgg sëñ Touba bëgg sëñ Fallu bëgg yoonu murit bëgg sëñ Fallu mooy bëgg murit yi te laaj baaram yéeme na loolu dara soo ñëwee ne ko sëñ Fallu rek lu moom jox na la aji na màkk lu bari ku ne wax na ne fii ne àjjana màkk waaye li ko gën a neex ci màkkam ji mooy minan ak arafa waaye lépp sëñ fallu la jiital moom bëggutoon dara lu sëñ fallu xamutoon dara lu sëñ fallu amutoon dara lu sëñ fallu waaye sëñ fallu nag ku ko am moom ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk-ñàkk nga lépp nag loolu maa ko wax sëñ fallu benn murit mënu ko fay benn murit mënu koo fay mag mu baax damaa nettali ne sëñ sëñ Fall daa bind ab kaamil bind ko bi mu ne ko waaw sëñ Touba yëkkati kaamil bi teg ko ci dënnam sëñ Touba boo ko masaa jox bu kaamil mu ca benn yàq nekkee rek da koy xam bala ko bala koo xool waaye ba mu yëkkati kaamil ba def ko ne hëkk sa nu si la nii di lañ nii di lañ ko wàcce woon ci alxuraan daane sa borom ne nga bindal ko kaamil sëñ sa borom ne nga bindal ko kaamil sëñ Fall ne ko daa koy jaay de loolu nag lu am solo lu jar déglu la sëñ Fallu ko daa koy jaay sëñ Tuubaa ko loo koy jaayee mu ne ko bala ma la ko wax dama ko bind ba ñëw te naa kaamil li mu ko bind ëpp weer lu gaaw la ko bind fekkaat sëñ bi njaay dem joxaat kaamil ba ne kaamil bi ma saa borom bi bind loolu mi ngi nii waaye daa koy jaay sëñ Tuubaa ko loo koy jaaye mu ne ko ku la xam wala mu bëgg wala mu sopp la boo léegi bu kenn laaj dara na dem àjjana ku la xam wala mu bëgg la wala mu sopp la boo léegi bu kenn laaj dara na dem àjjana te yàlla ku mu laaj dugal dugg nga dugg ci biir Seexul Xadim mi nga xam ne xam na lépp yàlla may ne ku ne daan na ñokk a jóg dugg ci biir lu yàgg mu ñëw ne ko fallu sa borom nangul na la ko kon kon kenn mënu ko xëj ñëpp la dimbale sëñ Fallu sa borom nangul na la ko kon sëñ Fallu ku dem àjjana ku ne liggéey na la te ñëpp dem àjjana yàlla na ko boole ci biir ñoom nag ku ne xam ne ne liñ fi nekk woon mu yëkkati lislaam jaxase bokk yi ba ñépp bëggante ñëpp nekk benn ndax sëriñ bu baax loolu daa def boo xëyee joxe dépense bare bare bare toggaan yu bari ak reer yu bari woo bokk yi ngir bëgg jëpp nekk benn rek am na lu ma ci waxoon nee na sëriñ Mourou Maam Mbàkke moom moom maam Cheikh Anta moo ko ba mu ñëw mu ne ko addu baaxee kaay mu wax la loo xam ne lii sëñ Touba ma ko wax moo ko nekk li boobu mu ne ko sëriñ Touba damaa ba ma ñëw mu ne Modou Mamoun boo bëggee dem ci sa borom te kenn du la gàllankoor seytaan du ci mën dara nit du ci mën dara yàq du ci mën dara xam nga nooy defar nee na si maanaam tekk digg mu ne ko del togg ñam yu baax di ko jox nit ñu baax hmm. dara du a gàllankoor du baax ne ba ma ko déggee nag laa am lu ma lu may amate rek yamale ko ci ñam hmm. waaye yamale ko ñam dong de daa joxe lu wóor a wóoru xarit tabaski nag yi màgg la ay mbubb ak lu ne rek noo joxe na ko doomaa rek lu mu ma saam te xam ngeen nag feeñ jëm moom ëllëg joxe dara ëpp fa ndax am na benn aay boo xam ne nit ñi de ñafaatu lañuy wax yàlla noonu delloo ma àdduna baa mën a joxe ba mën a saraxe kon yëf yi joxe ci la ñoom nag xamoon nañ ko ba tax dawuñ ko caaxaan waxtaan ci ñoom nag ci alaaji baara ak sëñ ak sëñ abdul baaxe daanaka rek mën nañ koo méngaleeg waxtaan ci yu baax yëpp rek ndax benn waay damaa woone ma waaw sëñ du baaxe xam nga ci lu bare ma ko lu baax lépp rek ngi ci moom mun ma alaaji baara nag ma ne ko lu baax lépp ngi ci moom jëru bind loo wax ci lu baax rek boo gëstoo seeni jikko fekk ko ci loo wax ci lu baax boo gëstoo alaaji baara fekk ko ci loo wax ci lu baax boo gëstoo sëñ sëñ abdul baaxe fekk ko ci ndax nit mënta wees loo am bokk nit ñi koo gis laabire ko koo gis jox ko sa alal wala nga jox ko sa xam-xam wala nga jox ko sam xel te loolu lañ daa def ko ñaan loolu yàlla fayal eh, xam naa ne daal waxtaanu jërtu guddal waaye diggante alaaji baara ak sëñ Fallou ak sëñ baax moom yaakaar naa ne alaaji sëñ Fallou ab sëñ baaxe naa ba tàyyi ne ma sëñ Fallou ku ma bëggoon la looy defal na ma ko jox na ma ay secret yu wóor yoo xam ne mosuma koo jox doomu aadama ne sëñ fa la ko jox te sëñ Abdou Baax nag daa mel daa moon taw feex ci loolu ndax sëñ Abdou Xaadir defal na ko sëriñ bu sëriñ Saaliw ku ne ci àdduna jaxasoo naa yow ba nga defal ko loo xam ne lii ku mu ci waxtaanee lu xamoo ko ku mu ci waxtaanee lu xamoo ko sëriñ Abdou Xaadir ci moom dégg naa mu ne sëriñ Abdou Baax rek cër bu mag la yor sëriñ baax baaxee cër bu mag la yor loolu nag xaw ma lu mu jublu waaye neex naa dégg ndax doxinu mag laa dox doxinu kilifa laa dox ci xilaafuk sëriñ dul baaxee sëriñ dul aada sëriñ alaaj baara ci xelal ko alaaj am na benn bu jënd oto juróom fukki million sëñ Tuubaa laa ko jox góoru ko de góoru ko benn yoon bu ci yéegee yaakaar na benn yoon ci yéeg daal biir sëñ laa ko jox daa ne ma nañ ma tuutal Alaaji Baara moo fi nekk Sëñ Tuubaa hmm. daa ko jox Alaaji Baara loolu dara wéefut hmm. kon ñoom seen diggante lu neexoon la lu taxoon la eh, bu ñu waxee nag ci diggante Alaaji Baara ak Sëriñ Abdul Baaxe noonu la diggante Sëriñ Fallu ak Sëriñ Sam meloon sëñ Masamba sëriñ Fall amu ci woon sago da koo sëriñ noonu la sëñ Fall am na secteur yu baree bari yoo xam ne seen diggante ñoom ñaar neexutu waxtaane diggante sëñ Fall ak sëñ Masamba sëñ Masamba nag daa doon ko fees dell ndax sëñ Tuubaa sëf ba fees dell am na benn kilifa gu baax bu bokk ci wàkk sëñ Masamba nee na kër bu ko sëñ Tuubaa jox kun fa yëkkoon kun moom rek la ko sa jox kun la ko jox nee na keroog man fekke naa gataay ba jariñu naa ci ndax lu ma wax suñu borom rek mu am ndax sëñ Touba nee na sëñ nee na sëñ Masamba topp na ko sëñ Touba ba sëñ Touba woo ko bis ne ko Masamba la nga laa lay bëgg a jox muy baatu kun te loolu ku ne xam ne sëñ Touba am na ko lu mu masaa laaj suñu borom rek sëñ Touba suñu borom jox ko sëñ Masamba it mujj gi lépp lu wax suñ borom rek. yàlla defal yàlla defal na ko loolu kon moom li mu am ci sëñ Tuubaa yombul jafe na lool ndax sëñ Tuubaa da ko bëggoon sopp ko lool moom itam mu doon taalib sëñ Tuubaa bu dëggoo dëgg boo xam ne bii loo ko sëñ ma nangu dégg li nettali fi léegi ku góor ci kanam sëñ Tuubaa naar ñëw ne xanaa kii si la loola neex ko lool loola neex ko lool sëñ Tuubaa làkk mu ne lool loolu ko lool ci koo xam ne ki yéene ba ko benn bàyyi yombul de kon moom am na sëñ Tuubaa cër bu rëy boo xam ne bii kenn mu ko te waa kër sëñ Tuubaa noonu lañ mel ñu jaxasoo nag moom maam Cheikh Anta maam Thierno sëñ Massamba koo ci dem ci moom am na sëñ Tuubaa loo xam ne lii da wax ne kii rek la sëñ Tuubaa jox lépp waaye sëñ Tuubaa mooy lépp moo tax lu ne yàlla may na ko ndax kere ba muy tàggoo ak sëñ Mourou Moussa ak sëñ Fallou di tukki teg seen loxo seen bopp ñaanal leen dox juróom-ñaari jéego yàlla na ko taxawal mu taxaw mu ne ko loo bëgg sëñ Tuubaa ko lépp. lépp la ko lépp lépp nag lépp ngi moo ko jox naa lépp mu daal dëppaat teg loxoom ci moom sëñ mënu sànne ko ak sëñ Fall ne leen danaa dellu si danaa dellu si leen xam nga kon lépp dellu ci la dellu waat na fajaaji yëpp kon moom am sikki sàkk ci ne sëñ Tuubaa boo gëstoo ba xam li ba kenn mu gëstoo ba xam lépp waaye loo ci xam nu mu tuuti rek mën nga ci jariñ jariñ bu rëy léegi nag daa am lu xew loo xam ne lii ci gone yi war nañ ko bàyyi xel ndax ku ne xam na ne jamono ji yàqu na li ko yàq ñëpp xam nañ ko nañ ko bàyyi xel sëñ Tuubaa nag kenn mënu koo nax moom te gëm ndong ak pastéef wóor lañ ci jariñoo waaye fii ne am na gone yu ndaw yoo xam ne sax jànguñ lu bari dafa ñu toll di inkaar sëñ bi nangam la waroon def sëñ bi nangam la waroon wax te loolu seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci tarkul i'tiraad dafa bokk ci yoon wi bàyyi diingat li nga war a def mooy fas yéene sa pastéef ak sa ngëm ak sa dëggu nekk ci sa xol nga jëfe ko te bàyyi li ci def sa yoon nekku ci sëriñ Fall daan wax ne ku la gis nga du waaje de waaj la nga romb du ko xam mm-hmm. ku la gis nga ne waaje waaye daan romb doo ko xam mag nettali ma ki ma ko nettali sax moo ko ko def ne sëñ Fall laa jóge fii ci Touba jëm si allié gii jëm si allié romb mel na mag mu toog ci garab mel na ku wér di boobu sëñ fal sëñ bu soo koy dawalal moo ko sëriñ taxawal taxawal mu taxaw sëñ Fall daal di wàccal boppam jël satala gi dem jox kooku mu naan bi mu naanee ba def sëñ Fall dellusiwaat ci oto bi toog sëñ bu sone ko ah sëñ bi demal nga maa jox sat rek mayut ko ndax kii daa nuru dof sëñ bi ne ci yàlla rek wax ko dara ba yësee aliye mu ne ko sëriñ kooke ma doon jox sat lagi da ko neexoon lu bari yàq ndax ci abdaali la bokk kooku ma doon jox sat lagi muy naan su neexoon lu bari yàqu ndax ci abdaali la bokk sëñ bu daa di ne ba mu wàcc sëñ Fallu wàcc ba dugg ci biir mu naan ne dem ca garab ga di seete waaje fekk ko hmm. kon koo gis mu romaalal koo gis rek romaalal Seydou Baax daan na ko wax daan wax ne ku dul ormaal ñëpp day ku ñëpp doo gaaw a jariñu nañu warmaal ñëpp nañu warmaal ñépp te teg ñëpp seen place ndax xamoo ku yor yëf yàlla fu ko neex la koy def waaye boo fekkee da ngay lu la neex nga wax loo neex nga def koo dégg teg ca baat loo wax lu ñu wax nga teg ca baat loolu ci gone mag sax jikko sagatu ba ko na gone jéem góor góorgóorlu te xam ne yëfi sëñ Tuubaa moom du yàqu mukk ci àdduna xanaa kay ñoom ñoo yàqu dem feneen waaye lii moom yàqu tey daana wax ne ñi ma jege de suñ deful li ñu war def ñu sori ñoo def ko ñi ma jege suñ deful li ñu ñu sori ñoo def ko tey ku seetlu koo xam ne kii sori na lool sa ci askan waaye lam man ci xaaj bi lam def xaaj bi defoo ko kon nag na ñi jege nañ góorgóorluwaat de ndax sëñ bi de ku ne la nga baax le képp la ba ko yow la nga baaxle la ma ko yow am na mbokk nag am na mbokk ndax waxal na ko boppam wa jal jëmi ixbati wa bi moo ko wax waaye téewut téewut la nga gën a baaxle mooy sa diine ak sa ngor ak sa ak sa ak ak sa lislaam la ma ko yow nañ ko fonk te góor góorgóorlu ci baax te yoon bi gaa yu baax yooyu awoon ba ñu leen fàttaliku tey leen màggal nañ ci jaar ndax ñoom dañ neex nañu waxtaane boo nee sëñ du baax a ñoo daa tabe am diine daana fanaan ngir du ba set toog di wir du ba set jox na ma toog boo xam ne bii def naa ko juróom benn fan jeexut te moom nee na gën a gudd la ko daa def maa ko yoon xanaa malaat na mu ne toog ba sonn rek toog ba sonn rek kon nag kook kenn mënu ko fay yàlla na ko yàlla fayal noo ngi sant sëñ Moussa bu baax mais am xalaatu tudde sëñ ba sëñ bu baax bis bii bu ko dul seen baax tudd na ko ñëpp seen baax ñëpp la amaloon ak yu mboolem ku sëñ Tuubaa jur seen baax seen xanaa yow jàmm mboolem ku sëf sëñ Tuubaa boo fa demee day mel doomu sago ndax biñ daa biñ fa daa dem ci këram bu doomi sëñ Murtala ñëwee wala doomi sëñ Fallu wala doomi sëñ Soybu wala kenn day mel ne moom amatul teg toog fee yaatal ko ñoddi ko safoo ko lool lépp rek sëñ Tuubaa képp fa taxaw mu di ko def ndax moo xam ne sëñ Tuubaa kon yàlla na ko yàlla fayal. yëf yi nag dañoo bett lool teñ sonn lool nag jóge ci àll bi waaye ku ne xam na ne am nañ yéene ju rëy rëy rëy ci wax ci sëñ bu Baaxe lu bari wax ci sëñ sëñ sëñ Alaaji Baara lu bari Alaaji Baara moom tase nañ yoon yu bari tase nañ Makka tase nañ Arabie Saoudite tase nañ Amérique waaye bu ci nekk damay safoo lool bëgg ma li ñuy li ñuy defal rakk mu di ko defal lépp alaaj ba sëñ baax noonu la mel ci noonu kon nag yàlla na ko yàlla fayal te bis bii maa ngi sàkku képp koo xam ne kii teew nga fi nga jàng fukki Ixlaas ak benn defal ko addiya sëriñ Abdul Baaxe jàngaat fukki Ixlaas ak benn defal ko addiya sa ah, sëñ alaaj baax fukki Ixlaas benn daa am solo ndax am na ko ne ma benn waay bu baax daa romb armel dégg ñu joojoo yu metti ñu joojoo yu metti mu laaj suñu borom ne ko ñii lu ñuy jooy mu ne ko lañ jëfoon daa jeex te kenn jaaru fi ñaanal leen foofu la nekk jooy rek ba àllaaxira ba bés bi ñu taxaw ba xam fu ñu jëm kooko jàng fu koy lixlaas ak leen ko ñoom ñëpp ci sarmeel dem tukki ba ci déwél sa mu jaar fa dégg ñuy rekk taa ko foofu ak yuuxoo ko fecc mu laaj suñu borom ne ko waaw ñii daa dama fee jaar dégg ñuy yuuxoo ak jooy ren ma jaar fi ñuy fecc nekk bég lu tax mu ne fukki lixlaas ak benn yéegi leen joxoon moo jeexagut kon loolu ëpp naa noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xam naa ne wax ji lu ci dëng moom sëñ aafe mii jubbanti na ko ci waxam lépp leer na sëñ Yàlla jaay mii bi mu commentaire lépp leer na man dama doon wax rek ci turu sama xar sama doom yii ñoom sama maa seen bàyyi ndax samay xar lañ samay soppali wóor na sëñ Tuubaa ni ma fonkoon seen bàyyi laa fonk ndax ñu baax lañ te gor te yaru yàlla leen saa jàppale te defal leen liñ bëgg lépp jërëjëf sëñ Tuubaa ba kenn du ñee kenn kenn li sëñ Tuubaa yoonam wii ci àdduna ak àllaaxira bu leen ci kenn ëppale ndax xam naa ne bu na seen bàyyi meloon ne lañ ci baax ak yaru ak bëgg lu baax yàlla na leen saa doon defal ko seen jot jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah rahmatullahi taala wa moom sëriñ Mahmadan ak njabootu sëriñ Masamba gi nga àndal yépp rawatina njabootu sëriñ Abdul Baax gi nga xam ne guddi gi ñoom lañ ko jagleel ñu ngi yëti yëkkati ay kàddu yu nuyoo yu jóge ci Serigne Moustapha te mu jiital ci ay kàddoom ziyaare ak nuyoo Serigne Abou Mbacké moom Cheikh Amadou Fadal ak Serigne Mountakha xalif général des Mourides ñu ngi nuyu bokk yi fi teew yépp te jóge ci kër yu fasantil ko yi ngir teew guddi gii nga xam ne dara warulu ko lu weesu xeeñtu lu baax ak ñaanal ku baax tax na waxtu wu nekk bu màggal gi jubsee bu ñuy waaj bisub ñaan gi mu jox mbooleem sëti Cheikh Mouhamadul yi ndigal ci ñuy taxawal guddi gi di ko saytu di tànn buñ koy tuddee ren jii mu yëkkati tur wi ne nañ ko tudde sëriñ Abdul Baaxe yàlla dogal na kilifa yi fi jaar yépp ak waxtaan yi jiitu bis bi wax nañ joxe ay leeral ci li waral turu sëriñ Abdul Baaxe ci kër Cheikh Abdoul Lamine rawatina ñu koy fàttaliku war-war yi war a tax loolu am bari na boo ci tudd rek mu mën a yóbbaale morom na bi ci jiitu mooy cheikhul xadim sëriñ Masamba cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ Masamba cheikh Mouhamadul Lamine sëriñ Abdul Baaxe sëriñ Moustapha sëriñ Abdul Baaxe loolu képp rekk dong doy na ci ñu jël guddi gi tudde ko sëriñ Abdul Baaxe li mu làmboo ci diggante sëriñ Abdul Baaxe ak cheikh Mouhamadul Lamine seere yaatu na jarul ñu ciy dellu si waaye li ma ko tàmbale woon rek mooy xeeñtu lu baax te xam ne fii fu ko mat a def la moo taxoon mu joxe ndigal ngir ñu jël tur wi tudde ko sëriñ Abdul Baaxe ngir xamle rek ne xelam ak xolam du jóg ci moom te loolu firnde li koy indi bari na waaye rawatina njabootam gi ko yàlla dégg sëriñ Abdul Baaxe moo nekk ca boppu njaboot bu mu tudd ko sëriñ Abdul Baaxe macha allah mag la te bi mu koy def Cheikh Mouhamadul Lamine mi ngi fi sëriñ Abdul Baaxe ngi fi moo tànnal boppam jël tur wa sedd ko sëriñ Abdul Baaxe ngir li leen yàlla boole ak li mu doonoon ci moom ku xamoon sëriñ Abdul Baaxe xam nga ne am na lu mu doonoon ci sëriñ Moustapha waaye am na lu sëriñ Moustapha doonoon ci moom sëriñ Abdul Baaxe jàppaloon ko ko doon ko dund ak moom te mu gis ne it lu mu ko dund ak moom rek dund na ko ak kilifaam euh, waxtaankat yi euh, indi nañ ci ay leeral yu bare ci diggam ak Cheikh Abdoul Lamine rawatina ay jëf ku xamoon sëriñ Abdul Baaxe xam ne ku ñeme àddiye la te àddiye jooj yi mu ñeme kenn ku ci nekk xam na fu mu ci jaar ak Cheikh Abdoul Lamine wutalewu ko fam ci doon jaar ak njabootug Serigne Touba gi lu ne lu nit di am di ko naw ci luñ mën a teg bët ak lim bu ñu mën a tudd ak bu ñu mënta tudd waxtu wu ci nekk yàlla dogal na yëkkati na ko ci coobaree boppam jox ko Cheikh Abdoul Lamine addi Cheikhul Khadim te booba Cheikh Abdoul Lamine Cheikh Abdoul Lamine Cheikh Abdoul Fadal la rawatina bi Cheikh Abdoul Lamine di taxaw kër Cheikh Abdoul Fadal gi ba bi mu nekkee Cheikhul Khadim rawatina lu mu ci mosaan di def dana woo Serigne Moustapha ngir ànd ak moom ñëw ba àgg ak moom ci Serigne bi mu fekkee jëf ja seere ko ba ci li ñu li ñu ci fekkee te mën koo seere rawatina ñetti daamar yi nga xam ne la mujj yëgati jox ko Serigne bi euh, Serigne Moustapha mee lay woo ne ko bis sàngam waxtu sàngam. ñëwal ànd ak diw yëtal ma lii sëriñ bi walla nañu yëkkati lii jox ko ko mu jox ko sëriñ bi loolu nag firnde ay diggante la ci lu leen yàlla boole kon sëriñ bi euh, Bachirou Bousso waxoon na ko fi sànq ci loolu yi ko sëriñ Modou Mamoun waxoon ne ko Cheikhul Khadim moo ko wax man mii toog naa mu woo ma wax ma loolu digal ma ko te ci soññ kon sëriñ Abdou Baaxe li ñu waxtaan ci ay jikkoom waxtaan ko ci aw meloom ba ñi ko déggutoon dégg ko ñi ko xamagutoon xam ko bokkoon na ci bëgg-bëggub sëriñ Moustapha ngir ñu bokk ci ñi nga xamante ni bu ñu déggee loolu danañ ko roy ngir defare ko seenu dund ndax dund gi li ci ëpp solo mooy topp li yàlla digle waaye njàng-njàngum cheikhul xadim waaye xool mag ñu baax ñi nga xam ne waxtu wu ne bu daje yu amel nii amee wala bu taxawaay yu mel nii amee ñuy jël ay cër di leen ko fa cërale du tur bi rekk moo tax ñu koy def du jaxasoo bi ñu doon jaxasoo ak ñi ñu séqal li tax ñuy def lii rekk a tax waaye dafay bëgg mu nekk bind boo xam ne day tooy waxtu wu ne ba ñi nga xam ne war nañu koo xam ñu xam ko ngir jànge ci lu ñor a rawalee seen àdduna sëriñ Cheikh cant gii nga xam ne sëriñ Moustapha am na ko ci njabootug sëriñ Abdul Baaxi gii ci ak nekkam ak ci wuteem ci ay bëtam mu ngi yëgati cant googu yi di ko jaarale ci sa loxo ngir nga tegal ko ko ci seen loxo ndax xam na ne bis bi sëriñ Abdul Baaxi lañ ko tudde waaye yëg na ne kër sëriñ ma sàmba tey moo ñëw ci biir kër Cheikhul Khadim kër sëriñ ma sàmba tey moo jóg ñëw ci biir kër Cheikh Abdul Fadal ndax ku xool seen tànk yi ak jëmm yi fi teew xam ne ñii yëg nañ ne sëriñ Moustapha am na lu mu def jàpp nañ ne sëriñ Moustapha am na lu mu jëf te jëf ji dara warulu ko lu dul li ma waxoon rekk xeeñtu lu baax li nga xam ne kilifa yi seqoon nañ ko waaye jàngal ñi war a jàng ñu xam ne lii rek mooy yoon wi te mooy doxin wi te képp koo xamante ni kii warees na laa digal wax la nga dégg wala joxoñ la nga gis lii doy na am joxoñ kon sëriñ Cheikh sëriñ bi mi ngi sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem mi ngi ñaanal njabootug sëriñ Abdul Baaxi gii yàlla mi nga xam ne moo mën a dimbale nit yàlla leen yàlla dimbale ba li nga xamante ni dañu war a liggéeyal seen way jur yi te jaarale ko ci biir kër ma Massamba yàlla leen yàlla defal tawféex mën koo def ci seen teyu bakkante mu ànd ak wér ak fekke ak tal bu loolu jàllee mi ngi yëkkati cant yoo xam ne mi ngi koy teg ci sëti Cheikh Mouhamadul Lamine yi nga xam ne ba ñu jotee ndigal ca moom ba léegi waxtu wu ci nekk bu taxawaay bii dikkee la mu cay dégg wala lañ ko cay dégtal lépp moo dëppoo ak li nga xam ne mooy bëgg bëgga mooy boole leen ba kenn ku ci nekk néeg ba ngay jógee ñu bokk daje ci ëtt bi xamante miinante xam ne li leen boole moo leen war a tënk ci ñuy liggéeyal sëriñ bi ngir mën cee jariñu kon mu ngi ci kàddu yooyu di ko teg ci loxo Baye Serigne Ndiaye mi nga xam ne mooy njiital taxawaayu sët yi ci góor ñi ak kii njiital taxawaay bi ci jigéen ñi Serigne mu nee na mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla defal tawfeex te sàmm leen te yiir leen ci barke Cheikh Amadou Lamine Bara Mbacké bi nga xamante ni moom moo leen boole ak moom ci kenn ku ci nekk ak kala jaboote ba tax taxawaayu rafet yi ngeen koy taxaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahuma salli ala sayyidina